bu baax mbokk yi ñu seetaan si seen télévision bi di BTV tey nag ñu am xew-xew bu mag muy làmb Quench Boy bu ngeen déggee bruit bi rek di ngeen xam ne ne tey mbër moo xewle borom guddi guddi bari ñi ñu ngi nii nag ci buntu kër gi di ko xaar rek nan la ñu mën a def tey jii rek ba gunge ko fi nga xamante ne moom mooy stade bu arène nationale mu bëre ñëw indil ñu ndam li kon topp leen ñu fi nga xamante ne moom mooy BTV ñu dëgtal leen lépp loo xamante ne rek tukkee na fii ci Bargny Géej rawatina rek fi nga xamante ne fii la dëkk muy Njanj comme ni mu koy waxee man defé naa fi mu nek yaram dawna ndax ñu ngi ci buntu kër gi tambali nañu défaral ko li nga xamantene mom moy mooy waajal ngemb yi ak yoyu gannaaw bañu ñu ba paré gis ngeen li xër rek moko waral tay fi li doy doy na fi ci barñi geej dañuy dem rek jël quelques impressions ñu wax ñu rek naka la yëgé mbër mi ndax nak bolom bëss bi mom moko ko jar moom loo wax mu ne la barñi la am lo wax mu ne la barñi rek man wa barñi rek la bëgg mo tax tay wa barñi génn massivement nara and ak mom gunge ko fi nga xamantene moy arène nationale mu dem indil ñu ndam li muy ndam lu sedd duguy ñepp diko ko ñaanal kon top leen ñu ci biir ñu won leen rek mbeur tay ji naka lay génnee ba jubal fele ci arène nationale ca BTV télé bu baax bi ci kaw ci kanam ca ñu dem bu baaxé tay naka ngeen wajalé bés bi ni dafa tay yëngatu ngeen de. waaw bu baax bu baax ku yeen ci mo jër lool rek. day dé ko ko xamni ko doomi barñal bu doon ko baax. kenn ngeen te dëj lay dem. loo koy yëgal boo ko yëgalul sax bu ñëw xam ne moo bari o ñoo dëkk ndam rek la ñu koy ñaanal mais jàpp rek daan loolu ñu bëgg jàpp rek daan waaw loolu la ñu bëgg waaw waaw tey moom kontaan rek jàpp daan ñibbi lañ xam ñu waa Bargny koen si booy mooy booy bu am yar la ñëpp la amal jàmm Sénégal ñëpp partout Bargny ñëpp porte à porte lay dugg xaaru kan ma sàmba ma demb ñëpp lay ku xewle mu nga fa ku deele comme bànneex mu nga këram coïncidence pour suñu mbër la ñun ñii combat bi ñu suñu combat dañuy jàpp daan ñibbi suul lak bi lak rose dañ suul suul lak bi parce que ñun géej mbambu laa leen dëkk ah mu ngi daw ndax waxtu waa ngi dem deux jot na fi mu nekk nii lii jot jot na sifflet yaa ngi wàcc si gannaaw bu am solo ñom ñu ngi def liggéey bu muccu ayib kon ñu doxalaat rek woyal woné kontaan di yek ndam kontaan rek di yek ndam. di ñaan yalla sutural ñu yalla may ñu ndam lu sedd guuy dem ci jamm ñew ci jamm inshallah rabbi. bu tolo fi mbeur nek ci biir ngeen wara xaar fi ñu nara and ak convoi bi tay defé naa luy doy doy na xol yi day fess mais dañuy jaayante rek ñaan ñaan yalla yalla may ñu ndam inshallah xam nga li dal na xel. yeb genn nañ li neex na yalla ñu yalla may ndam bi ziar la am ci ginnaaw fële bu ñu mënee avancé jël public bi ñoom it ñu ngi def liggéey lu ngi def lu am solo salaamaaleykum ayca loo wax Reug Reug Reug Reug Reug Reug tey ñu rey la Reug wax dara te sama yaram dafa daw waaw jàpp daan rek ñibbi kese kese loolu rek laay wax duma si dolli leneen ma si dolli day yaaxa foo ñun daal mbër rek la ñuy topp ah. ndam rek ci kàttanu yàlla suñu borom génn nañu suñuy kër saraxa sa suñuy lal ndax mbër mi rek waaw mbër mi daal lu nekk yal ko yàlla suñu borom may ndam waaw loolu rek la comme ni ko Malick Thiandoum di waxee dimanche la l'adrénaline monte defe naa ne xol yaa ngi féex tey. tey lépp féex. ah tey xoolal bëre daan ñibbi ñëw wàcce bari ndax ku nekk xam ne Coense. mooy dooley Bargny ba mu jógee ba tey ñun ragalatuñu duñu moy suñu gaynde ndax tay jam rek ndam rek billaa walaay kooku day xaar bari señ Bamba Lac Rose day xaar combat bi combat bi ala combat ba xamne mo nu premier combat quoi mooy señ Bamba wa dekk bi yëpp gi nga dekk bi nu mu mel ñepp ñëpp soxla ndam billaa walaay wa tay inshallah rek inshallah ndam quoi ci kàttanu yalla ak mbaaxam wa beneen instant yu dande de non la demee na quoi ñu lébu dañ soxla roi des arènes tey les temps xam nga ñoo am ay champion yu mel ni mbër sa coin sax xam nga waaw muy loolu noonu mais nañ ñaan rek ama yàlla doolu ñu ñaan insha allahu rabbi yàlla may ñu ndam quoi si kàttanu yàlla ñu ñëw célébrer waat ko di brode di nuyu sama brode ama sama doom baay la quoi Omar day jawlu nice ay ca ñu doxal rek yi wër xool rek sama gaay yi ñuy waajee fi mu nekk nii xol yi fees na yaram daw na mbërëng ci biir ñuy waajal a gunge ji ko. ndam rek xanaa ndam rek ndam ndam kese la ñu yëg. kese amul leneen. instant yi pare nañu fépp. waaw xaar xama mu waaw la demee nag. pare nañu fépp moom lay doon. Ladoum suñu moromam. beeg sëñ ba dañ koy daan amul leneen. gisee poul bi génn topp ni nga xamante mooy Mbaye Diagne borom guddi guddi bari ñi tey muy gone goo xamante ne ñëpp la nangul boo ne rek li nga koy référé mooy borom bari ñi tey jii rek lan ngeen koy wax mu gën a yokkaat ndax fii li fi nekk doy na waar bi ñuy dugg sax am nañ problème pour borom bari mooy mbëru lébu yi moom lañ jaakaar quoi mooy loolu Quench mën na am lu ne si làmb mooy loolu nañ ko ñaanal rek yàlla suturaal ñu may ñu ndam amul leneen ak ci li ñuy wax tamit fair ku xam lébu xamee ko ci yar ak teggin tey nan ngeen di ñaaxee gone yi pour bu ñu demee ñu am fa taxawaay boo xamante ne du ñu ñu ne accam non lébu du tooñ lébu moom tooñ quoi mais kuñ tooñ moom dañuy fayu mooy loolu lébu moom du tooñ quoi Wow, mais ndam rek waaw Omar defé naa ne de na touti dotu ñu mëna yeggati ndax yaakaar naa ne barrière yi moo tax fiñu ñu kale bari na te sama gaay ñu ñuy ñu ñuy wan wan doole ji dal di di téla a échauffé wu boobu nonu. noonu waa mbeur mbër yow la yaay mbeur mi wala mbeur mi lañuy xaar ku ci gën? xaar mbeur mi lañuy xaar champion dëkk bi waaw moom la ñuy xaar di ga ñaanal ndam rek Wa gis nga mbolam bi ko top. ndam rek mo na arranger di ga ñaanal ndam suñu borom may ga ndam inshallah. waaw liggéey na li mu war a liggéey bu dee doole am na ko bu dee bëree am na ko Wah gis nga waaw tey lamba ji lu ne la laaj daal ay jaasi à n'importe quel moment lay génn nii ah waaw noo insya noo waajee tey bés bi waaw jàpp dem daan ñibbi rek incha allah waaw lépp moo ji waaw lépp lépp naas nag incha allah lan ngay yëg waxtu yi bu tolloo mbër nekk ci biir maanaam dernier réglage yi daal defe naa ne si lañ toll nii waaw heure bi tolloo waaw fi mu toll heure bi su ma sañoon ñu accéléré iya, ko waaw mu toll dañu quoi waaw xam nga rek guddi guddi bari ñi te incha allah noonu lay demee incha allah incha allah. loo loo loo loo ngeen nu ngeen di nu ñu dundee combat bi mën nañu dem defe naa ne ba ci ñee laaj leen ndax ñoom it dañuy dañuy dañuy jege mbër te te heure bi bu tolloo fii defe naa ne xol yi dafay fees ah ma ne heure bi bu tolloo fii xol yi dafay fees desul lu dul dëgg-dëgg piir ay ca borom singo bi ni nga koy yéeyee nan la noonu noo tudd. man Coins la. yow yaay Coins ah. waaw. waa Quench tay ji lo yek tay ci besu champion bi borom guddi guddi bari. wa am kontaan rek wa diko ñaan ndam bu baax a baax a baax di ñaan ndam yu tam na am bi quoi wa ñu ko ñaan ndam bu baax a baax baax nga ñaan ñu ndam yóot bi nag ñaan ndam. wa ñaan am na Quench borom borom baax la. wa borom baax la quoi borom xol bu yalla wa kon yal na ko yàlla may ndam ci si kàttanu yàlla incha <laughs> ah, ah ah ah ñun yow lañu top lo yek tay ji jii. non kontaan rek kontaan rek xam di ñaanal Quench yàlla may nga ndam ndax bu ko amee mérito na ko ndax sonn na ko te nekk na jàmbaar waaw ñun ñuy topp si ginnaawam kon ni ama di waxee ñun ñun rek lay topp ñun <laughs> leer. ayca ayca. saa billaahi loolu moo moo tax ma jóge caare yi ñëw fii. ay gaañ sama waay ñoo bëree ndoo nag. di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla may ndam si barke Seydina Mohamed. yal na ko yàlla may ndam ndam lu sedd guy. kon daal la daal. 100 pour cent lébu parce que tey sa waay dafa sonn tey ci Bargny te waa Bargny dañ koo yab li ma koy digal mooy mu toog ci ay tànkam kase sa waay lenn rek la am. zongale la am takk kase. nag ko xañ toog ci ay tànkam diree ko toog xaar ka bu nee bëreet mu daw jàpp ko bëreet moom ñun xam naan sawaay bu jàppee rek jéena kon yow décortiqué nga combat bu jàppee rek jéena man xam naa sawaay bu baax a baax te waa bari tamit xam nan ko wallaay azim yàlla ko yàlla may ndam rek yàlla lafal ñu cet yàlla defe naa ne côté bi fii la waat mu jàll dem xooliwaat yeneen di réaction ba muy génn ndax tey lépp lu soxal combat bi rek dinañ leen ko dégtal à travers BTV di bari ñi toujours visible moom mi ne tënkalawul dara loo xamante ne rek soxal na muy doomu doomu bari ñi di ko def wala waa bari ñi kon toppaat leen ñu ñu wanaat leen leneen fii nee naa la lu doy waar moo fi nekk waxtu bu tolloo fi yaram day daw xel dem feneen ndax mbër buy génn tey nee naa la fii tey ku fekkeewul loolu yow loolu baalu ma la ka mais ku ko fekkeewul fii rek nga koj ko BTV di bari ñi toujours visible comme ni ma leen koy waxee nee la fi mu nekk nii wax ji wàññeeku na ndax dëgg mooy waaja a jot fii du waa Bargny rek ñoo fi nekk ndax dégg nga kee nee na la Caaroy laa jóge kii moom nee na Cambérène la ñu jóge doon defe naa ne yar rek moom moo am solo baax rek moo am solo ndax ki nga xamante ne mooy mbër mi tënqamluwul kenn képp koo xamante ne rek jëflante nag yow rek tey jii da ngay bëgg ñëw fay si ko ko moo tax ma ne la fii fi mu nekk nii mu ngi mel ni victoire la ñu kom lañu la nekk nii te victoire sax lay doon incha allah ndax kenn du moom mbër mi yàlla bu ko fayee xolom rek du sonn dama ne la Lac Rose duñu sa dootuloo ko defati Omar ñu demaat jëli ji ful bi wan leen leneen ak leneen fii non non mbiri heure bi ak gilet bi ngay jaay bandi bandi li noonu wala lan la da ñu a napp wala. du bandi bandi coincé moo waral loolu. waaw bés moo ko laaj quoi. waaw bés moo ko laaj. bés bi moo ko laaj loolu mais pour Lac Rose moom loolu beneen beneen affaire la. waaw loolu waxatuñu waxatuñu ñu roi des arènes lañu wax fu mu toll kanam. nu ngeen waajalee gone yi pour bu ñu demee tey ji bu ñu génne dinañ ne waa Bargny yi kat macha allah ci wàllum fair play bi na gis nañ yi fi fi amoon. la woon woon na la woon yow en suivre léegi léegi stade si kanam waaw di nga gis lu garaaw lu garaaw nga gis foofu. non tey dañuy yegg stade dégtal ko waa Bargny ndax tey bëgguñu dara rëcc waa Bargny looy wax BTV mi leen di jëlal lii tudd. sa kanam sa kaw sa kanam parce que ñii sama gars yi ñoo fa ne ñu ma am njëgu te amu njëgu sama waay la ak moom sa kaw sa kanam rek jaajëf nee na ci kaw ci kanam mais nii rek la dara du fa mën a dox ñoom it ñu ngi def seen kéemtalaay kattan tey ba dara du fi mën a nekk rek luy déranger wala luy tooñ kon jëlal ma leen ñoom it ñu ngi def liggéey bu am solo nii rek la sa dëkkandoo xewle nga ñëw man koo jàppale ñun ak ñoom ñoo far comme ni ñu koy waxee saa su nekk kon ñu wéyalaat doxantu rek ñuy dem stade mu ngi arène nationale dem dëktal leen combat bi mais xale jigéen di tey nu ngeen waajee combat bi <laughs> waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla Dame Mbaye nawlu si waaw naw rek naw rek tey daal defe naa ñoom ñoom ndam rek la ñu wax mooy ni ma ko waxee rek sécurité bi tey def ngeen lu doy waar nar jàppale ay ca yaa booy moom day daw yaa léegi yow am waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yam de bi sant suñu ñaari waajur waaw vraiment ñun kontaan nañ trop te am nañ yaakaar tamit aussi ah Mbaye Diagne mi daal lépp lu muy wuute rek yaa na ko suñu borom may ndam daal si barke yonente bi ñun daal loolu la ñaan loolu daal la ñu amal luñ ciy wax mais am nañ suñu bor yaakaar trop yàlla xam na ko mais dina baax incha allah. yàlla bu yaakaar tas ñu jaarale ko na mu daan defee mbër loo nooy waajale ko da ngay dem stade. dañuy dem de dañuy dem waaw. nu ngeen ah, ñaan yàlla rek yàlla may ka ndam rek. no potare dañ koy jappa daan ko billahi wallahi ana do xóot yu heppi yow lan la eh ay ci ñu genn waat la fi nga xamantene moy terrain bi ba paré pour su boy buy genn duñu am ben jafé jafé ndiak borom bar ñi geej lo yek tay <laughs> wa mais contane euh di ñaanal yalla aussi suñu mbeur mi sa boy muy boy bu baax lool motax nu bay suñu yité yépp ñew taxaw ni pour soutenir que pour ñaanal ka yalla aussi timit yalla defal ka ndam ci bes bi gis nga koñ bi fi yépp ñepp genn ñunu pour ñaanal ko pour sargal ko si bés bi parce que tamit aussi tamit moom liggéey na loolu pour Bargny moom lépp lu mu am da koy delloowaat ba Bargny moo tax tamit aussi nun ñii dëkk Ndalaal yi dëkk fa nekk si acteur de développement si koñ ba moo tax tamit ñu ñëwoon tamit pour soutenir que pour wane na kat ñëpp ñu ngi sa ginnaaw Bargny gépp ñu ngi sa ginnaaw di nga ñaanal yàlla yàlla defal kandam ndam bu ngoonee incha allah rabbi waaye gisoo ñun moom xoolal dan dan ki dellu seen ndànk ñun ñoo fi ne kii mooy suñu fête nationale waa Bargny Géej waaw kon na xoolal yal na yàlla defal jàmm yéen aussi yàlla defal leen mu kawe mais yow kenn du yow sama allah tey dañuy door on the beat. Oh, oh, oh. mamaka futhi kuberedana god my mandam do to my tere now yena yo homeda am oh. am busawan dawan sona aduna do to my ba correct my guess champion ga face ba correct my guess champion de ga face man burina wallahi burina man burina burina dumadaru I'm training now, I'm training now, I'm training now. Aiguise sur ma main. Tu roules bien, y'a pas de coups de mon nom, mettez one. Voilà le machalion, bagadon champion. Ni ne me def, ni ne me nota bar. ligue yang y'a no wagyul moi sur ma dole. I don't care about la, wakal du ma tere def. Harin la bain y'a my modu chibir gay. Ouai y'a la bachna, y'a la musalma Musulman, tu sens ma pechenor. champion like Masada Konje na tema maga fute kubalidan God may mandam do to my teneyo Yene yo home dak am am bosawan bawan Shona aduna do to my teneyo Bakurek megis Champion gefis Bakurek megis Champion deken face. Sky the limit, on n'a plus rien à prouver bal ba tàkk na biddew bu jógee asamaan kuy wax bokkul la kiy jëf man damay bëri taan doole kenn njaay dama déggal ndeysaan xamee naa janjak ak joor xamee càmmee nday joor toj na la mën na kaaru ces kaay jàpp si ki coor gaay waay man bëri taan lay gis gëm-gëm bi dootul dañ ba abadan taa i man sàkku na ñaan ku faral ji ba ne ko yaa man waaye la baax musal ma man ci samay pexe ndoon bay mag suma xel ma mën na àggale bëbët bi nekk ci man tax champion lay ma sa doon kon ju na tey ma màgg fu teeku bëri daan got may ma ndaam dootuma tere leew yéenay joxoñ am am bu sawan daawan coono àdduna dootuma tere leew baaku rek may gis champion nga fees baaku rek may